complètement à emporter euh, ce comment dire cette infraction là donc su fekkente ne tey Ousmane Sonko jël loolu daf ko doon topp non seulement bi passé du mën a dem voter ji te il était encore électeur il était encore éligible mm-hmm. d' ailleurs Macky Sall ñoom bi mu leen defal ay proposition sax il avait dit que bu ñu reculer élection yi Ousmane Sonko dina war a mën a présenter à la présidentielle mm-hmm. waaw mais c' est même président aujourd'hui qui revient parce que man jàpp naa ne coalition am la. effectivement qui revient aujourd'hui pour demander à ce que Ousmane euh, Sonko ne soit <laughs> pas ne soit ni ni électeur ni éligible mais il y a un problème qui se man je ne comprends pas l'incohérence de ces de, de ces hommes politiques jibi mën nga nit man nga ko contre ci politique tout ça mais dafa am loo xam ne ni souvent boo ko déposé comme ay acte dafay retourner su yow cest dire incohérence yooyu laa mënul comprendre moi j'aurais pu savoir quand bu fa j'aurais pu comprendre ñu diriger ko ci keneen mais Ousmane Sonko bi nga xamante ne ñoom Macky Sall a tout fait ba nga xamante ñoom on les a réintégrés mook Bassirou Diomaye Faye te loolu moo tax Bassirou Diomaye Faye tey nekk président de la République c'est ce même président kon sa veut dire que tey Bassirou Diomaye Faye bu ñu doon demaat élection ni nii nii nii ni électeur ni éligible parce que lii daal Ousmane Sonko day dal ci kawam. dans la mesure où seen infraction yi pratiquement on les on donc. man je ne peux pas comprendre une telle décision et puis aussi Macky dama ko xaw yaram xam nga tax parce que quelqu'un boo xamante ne bi nga jógee ci pouvoir bi yàggul Macky Sall qui a été ministre Macky Sall qui a été premier ministre Macky Sall qui a été président de l'Assemblée nationale Macky Sall qui a été président la République Macky Sall qui revient pour être encore député c'est-à-dire c'est ça c'est un problème cest dire dellu ginnaaw bi sax moo bi dama ko dama ko xaw a xeeb soo amoon leneen ko utiliser su fekkee ne ñoom c'est la symbolique qu'ils visent non y a pas de problème parce que Macky Sall venir defal leen campagne sans pour autant être sur les listes Ousmane Sonko a fait la campagne de Yewwi et pourtant il est il n'était dañu évaluer doon seen liste mais c'est lui qui a fait la campagne su fekkee ne ñoom ci symbolique bi rek la ñu mën a miser nañu wax président Macky Sall kaay ñu campagne loolu mun naa ko mën naa ko d'accord mais quant à bind Macky Sall c'est-à-dire les listes électorales pour mu nekk député même su fekkee ne sax par la suite dañ ne dina démissionner c'est-à-dire que loolu moom moo jaaduwul c'est-à-dire que loolu bu doon sax recul rek lañuy wax mais kenn mënu ko qualifier c'est inqualifiable si ce projet sur la symbolique Macky na ñëw te ce qui est sûr et certain que Macky ne remettra pas les pieds dans ce pays non il n'ose même pas ah Macky Sall ko fi xaar dafa bëri tu sais que la haine et la rancœur des Sénégalais contre Macky Sall ba léegi mi ngi fii Macky Sall les cent vingt sénégalais kila a assassiné mi ngi fii loolu ba léegi mi ngi c'est c'est c'est dans les cœurs loolu c'est dans les cœurs ji bi c'est dans les mémoires loolu fàttewuñ ko barki dem il a eu une altercation au Maroc avec une dame mais dame bi loolu mu ko wax mais fii la gën a fii fii fii cest à fii la gën a méttee kooku sax Maroc la woon peut dina ci dem ak avec quelques gants. kon da nga yaakaar ne bu na am. lu non ce sera pire dans ce ce sera dans ce pays. Macky bu bu ñëwoon fii tey. je hmm. t'assure la loi que la police et la gendarmerie auront beaucoup de problèmes pour assurer sa sécurité. loolu moom lu leer laa lay wax parce que sénégalais ci boppam mere nañ ko mere goo xamante ni avec tout ce qu'il a fait dans ce pays ñu rey fii ay xale yu dul jeex tëj fi ay nit ñu dul jeex briser fi ay carré yàq fi ay euh, édifice yàq fi ay euh, infrastructure yu dul jeex et tout ça c'est à cause de Macky Sall. Hmm. les gens ont voulu imputer ça à, à comment dire à Sonko mais c'est Macky qui est à que moom la ñu dénkoon réew loolu nag léegi. dafa ne ne c'est sorti dans la mémoire des gens yow non seulement réglé woo loolu nga bëgg a ñëw taxaw nga ne Sénégalais yi damay laaj encore seen baat te Sénégalais yi dax la nga gën ci biti loolu defe nga ne Sénégal mun nañ nangu loolu en tout cas moom de xam na ci wàllu boppam ne xam na ci wàllu boppam ne moom bu duggee fii ci réew mi il lui sera extrêmement ah. difficile en tout cas de gérer ça mais bu démissionné fan poste ba mu yoroon. xaw ma mais mais mais day ñëw baat si campagne dañ koo dañ koo dàq. ah démissionné wul dañ ko dàq ils on voulu mettre les formes diplomatiques dañ ko dàq la preuve liñ ko teg aux Nations Unies tam remplacé Ban Ki-moon mhm. da nga dégg foofu ñu ne dafa démissionné pourtant foofu Nations Unies la mhm. da nga dégg foofu ñu ne dafa démissionné la moo tax quatre pays France mu démissionné fay démissionné wul cohérence pour cohérence logique pour logique kay bu fekkee ne moom dafa investir di wax incompatibilité avec ses nouvelles tâches politiques kon kay bàyyi fële parce que actuellement il est aux mais lan moo tax Nations Unies bàyyiwul te mu bàyyi fii ci 4P parce que fii Macron da ko da ko ba mu génn léegi nag bon xam nga Macron ne mettra les gens ne vont jamais faire un communiqué officiel pour dire que lañ ko daax bon moom dina bind daal ne wéy pour et waaw mais logique pour logique bu dee dafa démissionné fii kay lan moo tax Nations Unies sax moo gën a grave parce que foofu foofu foofu c'est avec une couverture vraiment diplomatique c'est international alors donc. mais pourquoi ñu dàq ah, mais ñu dàq parce que ñoom non dans leur organisation mënuñu comprendre quand même que Macky Sall bëgg nekk fële en même temps ba pare. nekk dans des nekk dans des postures politiques. nekk dans des postures politiques. parce que su boobaa mën na créer ay fracture entre même le Sénégal et la diplomatie française mmh. mais comme que tubaab ñoom defuñu te xam nañ ne tamit ñoom seen i intérêt ñoo leen gën a lu nekk cest à ñu yoor waa ji mu génn. Mhm. ba ma ko mu génn. parce que bàyyi woon ko foofu mu nekk fa en même temps toog fii di politique loolu cest à c'est une défiance de la France. à l'endroit du Sénégal mais comme que français ñoom defuñu. mais ñoom bi ñu koy fal xanaa xamuñu loolu. wax mais non. waaw mais xam nga non nañ ko mais boobu Macky aussi n'était pas dans une posture politique. parce que ñoom jàpp nañ ne raxasu na ci politique Sénégal mais comme que moom dem na ba ne day dellusiwaat pour nekk député xam nañ ne c'est pas compatible avec la fonction bi nga xam ne d'envoyé spécial bi ñu ko joxoon foofu au niveau des 4P. léegi nag au niveau des Nations Unies pour voir ce que les Nations Unies li woote mooy moom bii moom dañ ko bëgg a maquiller mais dañ ko dax voilà mais am nañu njort tamit ne coowal or bi jug fan yi weesu yi tamit bokk na ci li tax décision bi am euh, loolu tamit loo ñu ci mën a expliquer. waaw non xam nga xam nga coowal or bi moom li wote woon mooy Macky Sall il doit s'expliquer sur cet or hmm. or boobu or boobu nga xam ne moom daf ko signé. Hmm. def ko au nom d'un certain Abdoulaye Sylla or boobu moom na wax boobu fan la dem. parce que xam nga gis nga y' a eu beaucoup de brouillage ci affaire boobu ji bi. non xamul tax man dafa am brouillage. xool dafa am brouillage. parce que date yi nga xamante ne moom lañ def ci ci ci ci ordre de mission bi c' est pas la bonne dat Hmm. pas la bonne date dañ ko antidaté. ah bon lu leer laa la wax dañ ko antidaté c' est lu leer la dañ ko antidaté lu leer laa la wax. en plus de ça xam nga ñoom dañu wax ne Dubaï la ñoom. waaw. waaw nañ nañ wax ndax or bi egg na wala eggul. nañ wax ndax egg na wala eggul. nañ wax or bi nañ wax or bi fan nañ wax or bi d'abord fu mu jógee fu mu fu mu jëm ak fan la tag fan lañ ko nangoo or bi nañ wax fu mu fu mu jógee Sénégal gii fan la ñu jaar fan lañ ko doon yóbbu fan la or bi tag parce que or bi eggut. ah oui bon je crois que il revient maintenant à la police ñi xam ñoom déjà soulevé na affaire bi mais de continuer leurs enquêtes. kon lii bu leeree ñiy wadd dina bëri de. ah mais bien sûr. ndax or bu toll noonu quand waaw. ak koppar gi muy mais jibi est-ce que boobu du boobu rek. jibi mais jibi du boobu rek moo feeñ. cest à boobu rek moo feeñ. boobu moo feeñ or bi génn Sénégal te gis ñu amul traçabilité bëri na. soo xoolee les rapports litigieux chaque fois dangay ngay gis or bi nga xamante ne mooy gën ak or normal bi gën Sénégal chaque fois boo gisee dina am deux tonnes yoo xam ne ni kenn du xam fu muy jaar moo tax il faut qu'on nous explique réellement depuis boobu ba léegi or yi nga xamante ne moom la gars yi doon jot ñu koy jël di ko réew mi dañ wax or bi ndax ci wàllu coow yi tamit scandale yi gis nañu keroog El Malick bi mu nekkee en point de presse mu wax ci wàllu matériel yi ñu doon jënd ah, ci dem beeg dikk bi ci aéroport Euh, mais automatiquement ma gis Doudou Ka génn tamit di ko démentir. waaw waaw mais xam nga Ka tey bu ko neexee mu démentir parce que mi ngi ci biti du moom mi ngi ci biti. waaw ah. mais ñu ngi si jërëm. s'il a la conscience tranquille du ñëw.